tey nag seen émission taxaw seetlu bokk yaakaar ni dañu ñëw tey fas yéene dalal bi nga xamante ni doomu la ñu ko koo xam ci Modou Wade bu Serigne Saliou hmm. bokk yaakaar yi tey moom la ñu fas yéene ñu bëgg euh, fas yéene tey sa suñu émission taxaw seetlu ñu fas yéene waxtaan ak moom ndax tey actuellement ni gis ngeen nii bëri ay jeunes yi nga xamante ni dañuy sikar mu nekk loo xamante ni lu am am solo la ba tax na tey suñu émission taxaw seetlu si waa sikar la ñuy waxtaan ba tax na rek ni ñuy def mooy dañuy bàyyi Modou ñok internet yi yental e yi ñu seetaan su ko defee ñu dug ci waxtaan bi son taxaw seet lañu wax nak fii la première chaîne de la bande mo ñu leen ñu Modou wat fayna la di wax jëfa Serigne salim Mbacké di nuyu ñëpp eh, di la nuyu yow mi di nuyu wa kër gi di nuyu fi nga xamni mom la ñëw eh, di ndaw rek nek ties jige fa tay nga dalal ñu fi nga xam ni euh moy yem télé hmm. waaw di ñaan Serigne Touba gën ko def ay télé télé si barkeb sëñ Saliou Mbacke. kon mbokk yi xarit yi gis ngeen mu nekk ki nga xamante ne moom mooy Modou mm-hmm. uh, sëñ Saliou Mbacke ñu ko yàlla yàlla yokk leeram mm-hmm. tey Modou mm-hmm. dañuy waxtaane tey ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum sikar tey boo ñuy wax wàllum sikar nan la nan la la duggee nan la la duggee ak nan la la dikkee ndeysaan waaw sikar moom daanaka cër la rek ndax sëriñ bi yàlla moo koy def si nit waaye fi mu koy jaar mooy fi ñu nàmpatal muy si keppaaru Serigne yu Mbacké daanaka foofu la ñu duggee ndax ay ndaw lañu woon nekk si di jàng euh, booy xool sa nekk si euh, école yi waaye sikar si moo moo yàq suñu jàng waaye dañ koy sante Serigne bi ndax lu lu rafet la ndax fu ñu duggee tamit dañ daan nekk di awu di nekk si programme yi xamuñu woon dara mënuñu woon dara di di di topp si ginnaaw nit di awu fu fu cant am ñu dem Serigne bi def ba xam ne nit ñi. li li nga xam ne moo moo nekk si ñun war naa génn sëriñ bi def ko si ñun ñu commencé def ay son di bind ay way def ay clip def ay son ba Sëriñ Tuubaa euh, mottali yéeneen si ñun muy muy li nga xam ni mooy sikar si nga wax daanaka foofu képp lañ ko jëlee. kon mbokki xarit yi dégg ngeen euh, kàddu yi nga xamante ni moom la Modou wax mu nekk kàddu yoo xamante ni kàddu yu am am solo mm-hmm. mais si sa biir wax sànq dafa am am solo boo wax. Mm-hmm. bi mu ciy dugg moom bon. Mhm. moo yàq sa jàng. Mhm. tey bi nga jékki-jékki nga dugg si sikkar yi. Mhm. te pourtant say parents dañ na sontoon nga jàng. wallaay nan la demoon ak say parents parce que souvent. dañuy faral li nga xamante ni soit mooy sikkar wala mooy loolu métti woon nag ndax euh, biñ si nekkee yàgg na suñu waajur yi dugal ñu école jàng nañu al azar dem nañ si daara yi. waaye gis ñu woon lenn lu dul sikar si waaw ndax suñu waajur sax tere woon nañu ko ndax ay jamono lu meloon danga daan fajar nga daan tëdd si loolu déranger suñu waajur yi mu ne lii da koy bàyyi dem daara ja waxoon na ma sax da koy bàyyi boo li ngay def boo ko bawul dama lay delloo daara ja barke Serigne Touba ak ndimbalu Serigne bi def ba suñu waajur gis ñu. fu mu dem rek ñuy wax Modou Wade war a mu dégguñu ñuy sikar war a ñu def ab son bàyyi noonu muy déglu mu xam ne lii sagub seen sagam la ba pare cër la bi Serigne Touba def si ñun muy nag kii yoon la ma ñaanal ko moo tax daanaka ñaan gi mooy law nii ba léegi. kon euh, mbokk yi xarit yi dégg moo tax euh, ñaan gi mooy law ba léegi mu nekk kàddu yoo xamante ne macha allah kàddu yu am am solo la tey boo ñuy fàttali rek euh, sikar bi nga njëkk def. Mm-hmm. sikar bi nga xamante moom nga njëkk moom nga njëkk a sikar. wallaay euh, boo mhm. waaw dëgg la euh, bu may njëkk a def ndax dama toog rek nekk si cant yi ba si yàgg ma ni man yoon la ma génne dara. Mhm. am si sama benn xarit bi moo ko àndal muy duyoo lu ñuy wax duyoo. muy Serigne Bambaye Waaja. ma ànd ànd seek moom ñu duyoo ko def premier single moom laa njëkk a def. Mhm. Serigne Bambaye Waaja. kii leen di musal yéen a mun a tàbbi leen tàbbi leen te ñu jëfal ñun de sunu sëriñ kenn la waaye te sunu waay moom mooy sëriñ Béthio Maam Bambi Thiam kon sëriñ Bamba ay waaja kii leen di musal loolu laa njëkk a def single. mu nekk di yow ah, kon li nga xamante ne moom la Serigne Bambay waaye kii leen di musal mu nekk loo xamante ne macha allah. Mhm. Euh, boo ko déggee rek mu nga ngay am mbégte bu baax a baax ndaxte. comme ni ngeen ko xamee rek xale lépp lu muy fooy bokk rek dañuy faral di wax ni waajur bu nga si jàppalee rek mën na dem. ba tax na macha allah boo ko dégg mu sikka rek da nga xam ni am na lu yàlla def ci moom waaye tey. Mhm. ban moment la say parents nee na nag jot na. Mhm. parce que. topp nañ la. Mhm. tere nañ la. Mhm. ba sonn ñu gis ni lii sa bëgg-bëgg la. wallaahi xam nga toog say parents sant ne war nañ la war nañ la ci mën a ñaanal pour nga àgg say morom yi fi ñu àgg. waaw dëgg la loolu di leen di leen santaat bu baax muy sama papa ak waa Wadeen yëpp di leen santaat bu baax xam ni gis nañ euh, jàppale jàppale gi ñu ma def ndax dañ may woo di ma teg si yoon euh, fi ma ko njëkk a nag mooy cant dafa amoon koñ ba te genre temps yooyu mu doon wax del del wàññi yi yooyu noonu guddee tëdd gi da nga fonk jàng bi barki sëñ Saliou cant am koñ ba ma woy ba pare mu xam ni nag jot na te daa toog daa toog buntu kër gi déglu te bu rombee ñu koy nuyu sa doom ji démb jàng na sama buntu kër neex na yooyu noonu mu dem nag ba xam ni jot na mu toog waxtaan seeg man ñaanal ma di ko ñaantal mu yàgg fi loolu téwér jërëjëf tey euh, dañuy reste tuuti rek si sa mhm. début parce que c'est normal ñi seetaan euh, gën a xam. Mhm. kii wax kan la. ak fan la jaar. tey euh, bi nga duggee si cant. Mhm. parce que gis nañ tey actuellement ne macha allah Sénégal ñi koy def. ñi koy def bari nañ. surtout Thiès boobu nga nekk ñu leen nuyu bu baax a baax waa Thiès. am na suñu benn xarit bu fa nekk ñu koy ngi foofu. ndeysaan di taalibe sëñ Saliou. ñu koy nuyu bu baax a baax. tey say parents. libéré nañ la. nga la nga bàyyi na la pour nga way mhm. tey yan kàddu mhm. bi sa papa di bàyyi wala sa yaay mhm. yan kàddu lañ la dénkoon euh, mu nekk kàddu yoo xamante ni moom ni ngay waxee ni man mooy kàddu yoo xamante ni fu ne moom moo la gën a téye la gën tënk pour nga mën nekk sa yoon wallaay dëgg la kàddu man leen rek laa si laa si lépp jël ko dama am kàddu yoo xam dama fee neex lool muy sa sëriñ sama sëriñ la sikar nee na moom su ko mënoon da koy def. wallaahi neen na su ko mënoon da koy def comme yow la yow la ko sëriñ bi def jox. kon nag naa la si bàyyi te nag na nga fonk ñi ngay nekkal te te foo dem na nga leen fonk te yaru jox ñépp cër. ma ni ko waaw mu ne ma loolu daal laa la boo ko defee rek di nga raw ñëpp si barkeb Sëriñ Tuubaa waaw loolu la ma tënk moo tax loolu wax dëgg yàlla fu mu mën a nekk rek dama koy dama koy namoo waaw loolu dama si kontaan lool di leen nuyuwaat baax baax a baax a baax. kon euh, mbokk yi xarit yi dégg ngeen ne euh, muy kàddu yi nga xamante ni euh, Modou Wade moom la wax mu nekk ay kàddu yu ama am solo ndax te yaakaar àdduna boo ci nekkee rek li gën a wóor mooy nga am kilifa. ndax boo nee kilifa rek yaakaar naa du bëri li ngay juum. Mm-hmm. boo nee kilifa aussi du bëri li ngay faq salu mm-hmm. mu am tey loo xamante ni dinañ ci ñëw. mooy gis nañ actuellement ni jeunes yu dugg si Sika dafa bëri. Mm-hmm. mais euh, question la boo xam ne sax souvent ñu fi jaar naa mm-hmm. gis ni dañuy jantal ñii loolu la ngeen koy dundee ak euh, parce que. tagg yonent wala loo xamante ne leer bi lay topp leer boobu la topp moo tax xam nga n'importe dundee comme ni nga yi rek gis nga boo leen nii dëgg la dëgg la dëgg la waaye tamit euh, nit moom nit la rek te ñun ay ndaw lañ bëgg a dem te ndaw boo fi nekkee rek dangaa war a am yoon wu sell boo xam ne da nga faa war a teg sa tànk xam ni sa bët fii nga ko teg te bëgg naa faa romb moo tax dinañ gis lu ne dinañ gis dinañ gis lu ne waaye yow yaay ak sa diggante ak bi wax dëgg yàlla man nag duma comme dingay gis ni ñoo xam dañ lay ñëw di la bëgg muy ndaw ak mag jigéen ñi ñëpp comme ni ko waxee waaye yaay am benn yaa yaay def ñoo xam ne rek daanaka kenn du la si jàmm mm-hmm. wax dëgg yàlla waaye doo toroxal kenn da nga yéene ñëpp jàmm waaw loolu daal laay laay laay dénk ñëpp ak waa ñi ñëpp képp kuy téye micro rek na boo xamee ni yoon bi nga bëgg dem rek pousse fi te te ñaan Serigne tubaa eggale la fa waaye tamit di nga gis di bëgg a dem lu ne lay faqasal mm-hmm. waaye dañ siy ñaan Serigne Touba ba ñu bañ si bañ ñu see euh, fa euh, faqatal leen loo xam ne lu ñaaw la si barkeb Serigne Touba ñu ngi dénk suñu bopp Serigne bi. kon mbokk yi xarit yi ñu euh, ba tey yéen seen émission taxaw seetlu fii si la première chaîne de la banlieue gis ngeen tey ñu fi dalal ki nga xam ne moom mooy Modou Wade ah soppay Serigne Saliou Mbacké ñu koy ñaanal bu a baax yàlla na yàlla yokk leer. Mhm. a doy mhm. mhm. war na nekk ci moom. wallaay tey pour euh, nga nekk sikarkat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ku la gis respecté la nan la laaj waaw lu laaj moom loolu yàlla moo koy def si nit waaye cër la tamit yow mi nga xam ne yaa bëgg a sikar yaa am foo bëgg a mooy da ngay première bi dangay fonk nit ñi ndax tamit nit ñi ñoo ñooy puus puus jànkat nit ñi ngay romb mu ni ñu ni diw jàng na fale mu neex ma xaar mu yóbbu ko fële loolu nag mooy law da jox nit ñi cër ba pare li ngay def mën ko waaw mën li ngay def ba pare li nga xam ni moom la yàlla def si yow muy muy loo xam ni fasaax la rek yàlla moo koy def si yow loo wax mu safe loolu tamit di si am ba pare da ngay set sell ndaxte tey mënoo di tagg sëriñ bi rek daanaka di di am noo mel waaye dañuy ñaan sëriñ bi loolu loolu nga xam ne moom lañ bëgg rek yàlla nañu ko defaral si barkeb Serigne Saliou Mbacké. kon nag mbokk xarit yi yaa ngi ko dégg. si barke Serigne Saliou Mbacké la wax waaye li ñuy def rek mooy daf clip boo xamante ne moom ko génnee rendre ki nga xamante ne tey yaakaar ñu bu ñu taxawee di wax yàlla moom la jagle loolu muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ba mhm. tax na fa ñuy jaar rek xool clip bi nga xamante ne moom si njukkal nga sallallahu suñu plateau taxaw li dun la di dox di gesu lépp mooma moom Mbacké la seen di dox di gëstu Mbacké fi jombe woon leer xam-xam bi law na Mbacké moom rekk a fi xamal naan yàlla nee na fi am ba ñépp naan Serigne Saliou mooma Mbacké moo ñu def ay fi am ba ñépp naan Serigne Saliou mooma Mbacké moo Sadi Khalilou Mbacké bu na si bëti maam feeñ na si xolu Mbacké lu fàtte sa kiiraay lu leer na kaani Mbacké moom Mbacké xewal ji moo waral way wi Mbacké sonu seen ñu ngi si yow lu leer na kaani Mbacké bu na si bëti maam feeñ na si xolu Mbacké lu fàtte sa kiiraay lu leer na kaani Mbacké rahmatan lil alamin في جنة يا جي رحمة للعالمين يرمى ديم يا جي خيركم ديم في جنة يا جي ولا المعيوبات سخابة يا يونت موي خمل نان يلا لنا ولا المعيوبات سخابة يا يونت موي خمل نان يلا لنا ابن عبد الله bayu Fatima yónneel tibee Fatima soo bëggee yonent bi jullil ci moom Mustafa soo bëggee yonent bi jullil ci moom Mustafa yàlla buur bi may na la saxaabaam ya julli na malaakaam ya julli na jullil jullil jullil jullil ci moom soo bëggee yonent bi jullil ci moom Mustafa soo bëggee yonent bi jullil ci moom Mustafa yàlla buur bi may na la Moustapha man bëgg naa la Lamina. Bayu Fatima man de bëgg naa la. Moustapha man de bëgg naa la Lamina. Maam Saliou Fall man de bëgg naa la Lamina. Moustapha man de bëgg naa la Lamina. Cheikh Fall Baye man de bëgg naa la. Moustapha man bëgg naa la Lamina. Baye Sakku Faal man de bëgg naa la Amina. Moustapha man bëgg naa la. Sëriñ Fallou Faal man de bëgg naa la. Moustapha man soo bëggee yonent bi julli lu ci moom. Moustapha soo bëggee yonent bi julli lu ci moom. Moustapha yàlla buur bi may na la. saxaaba mi julli na. malaaka mi julli na. julli julli julli julli ci moom Moustapha man bëgg naa la Lamina. Moustapha man de bëgg naa la Lamina. Moustapha man bëgg naa la Lamina. Moustapha man de bëgg naa la Lamina. Silma Mbay lo man de bëgg naa la Amina. Moustapha man de bëgg naa la Lamina. Dilala Faal man de bëgg naa la. Moustapha man de bëgg naa la Lamina. Moreen Kara man de bëgg naa la. bëggee yonent bi jullil ci moom Moustapha soo bëggee yonent ci moom Moustapha yàlla buur bi may na la salaam yi yi ni ngeen ko xamee rek euh, comme ni ko Modou waxee léegi rek fer nga xamante ni tey euh, moo lëmbee li nga xamante ne mooy euh, adduna bi ñu mm-hmm. ñaan rek suñu borom yàlla na ko fi jëlee ndaxte yaa na mm-hmm. yu mel nii ñaan rek mo fi mëna jëlé ba tax ñu ñaan rek yàlla am fi suñu borom jëlé ba ñëpp nekk nekkaat seen jamm waaye tay bu ñu waté tay est ce que yan yeen yeen projet actuellement ni moo nekk sa kanam waaw lu nekk sama kanam nak bari na eh, ba sax ba xol ñu ngi doon waaj bis 4 avril bi waaye xam naa ni mënaguñu wax nit ni ko amul wala am na hmm. ndax li fi xew mo taxoon sax ñu ñu doon ñu doon xaar bis bu mag la nag wax dëgg yàlla ñu doon ko defee fees a Thiès waaye mënaguñu wax nit ñi leen am na wala amul ndax li nga xam ni moom moo fi xew di ñaan li nga xam moo fi xew di ko ñaan sëriñ bi ak yàlla suñu borom mu dindi ko fii waaw loolu loolu loolu suñu projet ak yeneen yeneen yoo xam ne sax mu ngi suñu kalam waaw te ànd seeg gaañ yi mooy sama staff bi ménagère Modou Modou Mamour ñaan ak euh, staff bépp Assane jiite ko waaw wax dëgg yàlla ñoom liggéey bi ñoom ñoom la ndax man du moo def dara damay toog rek ñoom may woo programme bi ak lii lu nekk suñu kalam nag bëri na ndax bëgg nañoo dem sax ba raw li nga xam ni moo moo moo fi jaar di tëgg feneen wax dëgg yàlla mu ndax fépp fu fépp fu fi nga xam ne saal am na fa rek mu si réew mi ñu ngi ñaan sëriñ bi yóbbu ñu fa ñu ñu ñu sant fa sëriñ Saliou. Mhm. kon mbokk yi da ngeen solo est-ce que benn contact boo xamante ni Europe la parce que gis nañ ni bon léegi si kàkkat yi bëri na li leen di woo taalibe yi nga xam te ñoom nekk Europe mhm. Amérique. xam nga di leen contacter la waaw euh, booy xool sax dinga gis nit nekk nekk foofu wala moo dama dama bëgg nga ñëw fii mm-hmm. ma ne ko waaye incha allah mun mën a ñaan rek muy sama bàjjani ak sama fan yi fa ne booy xool nii am na bis yoo xam dama koy def cee sams boo xool li ma sol sax li may sol ba si kaw ak suuf dara boo xam ni 9 mètres lay nekk wara a war ñoom ñoo koy jënd yónnee ma ko ma ma ma jël ko ñaw la ko. muy ñoom yàmm ñoom tànday wadd ñoom temps xadi ñi fa ne te bëgg nag wax dëgg Serigne Touba chaque année dañuy bëgg sax moom ma fay ñëw waaye Serigne bee ko dogalagul moo tax yàlla na Serigne bi euh, matal lépp si barke Sëñ Salim. ci barke Sëñ Salim waaw waaw euh, di di santaat bu baax di santaat euh, ñi fi nekk waa kër gi di santaat ñi nga xam ne ñoo ma fi indi amuñu seen fay. di di ñaan li nga xam ne mooy télé bi yàlla def ko ay télé télé si barkeb Serigne Saliou Mbacké di nuyuwaat euh, ki nga xam ni moom daanaka bu ñu mënee woy moom la muy Mouhamed Niang nekk si ginnaawam di ko ñaan tamit di ko di ko ñaanal Serigne Touba gën koo teg loxo sunu xarit la sunu mag la sunu lépp la di nuyuwaat waa Thiès euh, xale sëñ Saliou yi soppe Modou Wade staff bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu waa télé bi nag wax dëgg yàlla leen ñaanal Serigne Touba gën leen a teg loxo. kon euh, mbokk xaar yi dañ leen mu nekk ki nga xamante ne moom mooy Modou Wade bu Serigne Saliou mm-hmm. xam naa ba su ma tëjee rek moom mooy tëj am lu mu may internet IMTV ak fansam yi mbokk yi euh, gis ngeen tey ñu daloon fi tey ki nga xamante ne moom mooy ah, Mohamed bu Serigne Saliou ñu mm-hmm. affecté bu baax a baax di ko gërëm bu baax a baax. moom mi ngi jugee ba Thiès. <laughs> xam nañu Thiès ñu waa Thiès gépp. <laughs> Baye Sow rek waa koñ ba ñoom Bass ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu leen nuyu baax suñuy papa leen tamit waa grand place bi ñëpp ñu leen di sant bu baax di leen gërëm. boo ko gis ngeen c'est mmh. normal il faut mu demee noonu parce que dafa am ñi nga xamante ñoom ñoo nekk seen ginnaaw c'est normal bu ñu taxawee ci euh, ci kanamu caméra ñu leen di gërëm. ndaxte hmm. wax nga ko ci biir waxam bu ñu xoolee ñoom pratiquement duñu daj daj dara hmm. stade bi mooy ñooy def lépp dañ naan ko ñëw rek nga nga bégal ñi nga xam te ne mooy jaar bi ñoo def li muy def après dama euh, delluwaat nopp ko ji ba tax na ñu koy gërëm bu baax a baax gërëm nag waa Thiès yëpp hmm. ak stade bi nga xamante ni ah ñoom na àndal di gërëm ki nga xamante ne moom muy boole moom muy muy muy mama may gërëm ki nga xamante ne moo nekkoon ci cadrage bi ñuy def rek mbokk yi xarit yi li moo nekkoon seen émission taxaw seetlu fii si la première chaîne de la banlieue dañ rek mu euh, am mu bàyyi rek <laughs> ah, fansam yi su ko defee ñu tëj wallaay <laughs> tey moom mooy sangu bee Serigne Saliou Mbacké mooma e, ki moo di rabbana Serigne Saliou Mbacké mooma nañ andu way ko Mbacké Serigne Saliou Mbacké mooma ki moo di rabbana Serigne Saliou Mbacké mooma adduna gi nii day jeex Serigne Saliou Mbacké mooma nañ jàpp ka fay yóbbee sëriñ Saliou Mbacké mooma ka fa yóbbu gëstu war na nooy maam nañu toog xalaat mbir mi sëriñ mooma mbir boo fa nekkee gëstu fa nga jëm ba xam leer na lii lépp mooma sëriñ Saliou Mbacké mooma moom Mbacké mooy te xel te mooy jàlle daw si leen yoon wi leer na sëriñ mooma شاعر رفع وخلني بالنقور ركي يا ولا دقي دقي في المني سري سري وباك يا ماما أبي أدلا نبي دقي كن خمة الفوي مدي من جاب سري مسالي مدر ساكو واو سانغ باغي سانغ باغي كي مدي سري مسالي سنواجي xol bi bëgg di tàggoo xol yaawul xol bi bëgg di tàggoo xol yaawul sunu xel ak sunu xol bee mu mbàkk yaay borom jërëjëf. waaw mbokk yi xarit yi gis ngeen ba tey rek mu nekk ki nga xamante ne moom mooy Modou Wade am na xam naa yaa xam dinañ koo gis mhm. moom dañ bàyyi da may ñu si clip bi tuuti comme comme ni nga defee mooy man sa jaam laa bëgg doon mhm. waaw te nekk clip boo xam ne sax booy xool ñu ngi si ànd ak maman sa xarit daanaka mooy mooy sama clip yëpp moo ko yor mhm. di ko ñaanal nag Serigne Touba gën koo teg loxo moom it sama xarit la te ku baax la wax deug yalla euh, man sa jam la bëgg doon waaw mom lañu wara clip mhm. té danaka sax nopi na di profito du nuyu walé sama yaay awu jog mom wax deug yalla lepp mom la di ko ñaanal mu yag fi man sa jam la bëgg doon man sa wara kan la ñaané man sa nagala bëgg doon ngam du fi yelwaane ay maam ñun ñoo la gëm di la ñaane yaa nu sauvé dunia be ay maam yaa nu jële nasaraan be tabal ñu si leer gi fi feeñe yaa nu dëkkoon dëkkaale noon dëkkaale sa jaam ñun de ñoo ngi kon mënu maa way wa dee تويما سنغبي كنو بكيمي دنيا مساليو كنو سيجي ولا بغدوني سيجي ولا كلا بغدوني مغد الوالي سرسالو مغد خلاني سرسالو ايه بدي مالي والله الله يريف <laughs> So